ça soit ajourné. Monsieur le ministre, l'exposé des motifs qu'on nous a envoyés, c'est éviter des troubles politiques. Les troubles ont commencé. Nous avons des blessés. Il y a des députés qui ont été arrêtés. Actuellement, aucun député, l'Assemblée nationale ne dispose pas du décret qui a annulé les élections. Aucun préfet, aucun candidat n'a eu à être notifié de ce décret. gars yi xam nga luy ni li tey c'est parce que on a constaté que le conseil constitutionnel n'a pas respecté la loi moo indi réunion mais ñun on ne doit pas voter et c'est là où je suis vraiment désolé on va dire aux députés est-ce que on vote pour ou non l'application du règlement intérieur est-ce que quand il y a des vice-présidents absents on vote pour continuer le débat non on suspend la séance aujourd'hui Monsieur le Président la Commission, je vous demande, quand vous, me, vous aurez à me répondre, de me parler, de me dire dans le règlement intérieur cette notion d'urgence. Cette notion d'urgence que vous avez évoquée, dites-moi l'article qui en parle. Parce que tey nag règlement rek la ñuy wax xuloo wuñu xasante wuñu saagante wuñu li conseil conseil lu wax ba ngeen ne erreur la ñun nañu fexe ba buñ def erreur. li may demander je demande pas le vote demande l'application du règlement intérieur si vous votez c'est pas ce que demande je vous demande d'appliquer l'article 29 et le président on vous prépare par rapport à la réponse mais sérieusement je vous demande de me lire dans le règlement intérieur cette notion d'urgence dont vous avez évoqué ça n'existe pas dans le règlement li ma lay ñaan oui merci président La République est en train de On n'a pas ce droit. Nous sommes les enfants de Senghor. Nous sommes les enfants de Abdou Diouf. Nous sommes les enfants d'Abdoulaye Wade. Les enfants de Macky Sall, merci beaucoup. Les enfants de Macky Sall, c'est notre président de la République. Son, son jeune frère, Aliou Sall. J'ai écouté avec beaucoup d'attention quand, quand Aliou intervenait. Maintenant, Monsieur le Président, tout ce que à l'Assemblée nationale, de ne pas voter demande de me lire l'article. Est-ce qu'on applique l'article 29 et 43 bien le président va me dire dans, dans le règlement intérieur cette notion d'urgence qu'il a Le président Moussa Diakhaté, merci monsieur le président ki fi jóge léegi soit bët yee baaxul wala dafa juum wala il est de mauvaise foi bi ngay leer article bi waroo ci woon boole obligatoire nekku ci ci article 43 bi ku nekk am na sa règlement intérieur mooy bi njëkk beneen bi beneen bi 43 dëggul ma wax la beneen bi le gouvernement été représenté le cabinet du ministre était sur place et a participé aux travaux ñu mu ngi nii beneen bi ki fi jógee léegi en commission li may wax ni ñi fekkee nañ ko moom moo ni juge constitutionnel yi dañ leen corrompre ba engage woon taxaw pour voter enquête parlementaire bi pour mu leeral kooku moo wax loolu moo wax li tey en commission en commission merci monsieur le président je demande la poursuite des débats lii yëpp ay pexe la rek pour retard débat bi di ngeen ñëw ñu débat merci cher le rapport, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Euh, monsieur le Président, je demande la poursuite des travaux. Merci. Merci. Quels sont ceux qui sont pour son adoption Cinquante-quatre voix. Quels sont ceux qui sont contre La question préalable est rejetée. La discussion du rapport s'engage. Abbas Fall, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je crois que quand les députés viennent ici pour poser des questions, nañ leen répondre sur la base du règlement intérieur fii yoon amu fi dara laa sumi woon du ma ko sumi na ñuy sumi seen mbaxana yi lii mbaxana la comme yëpp mbaxana la rek comme lépp du ma ko sumi je pense que dañu war tontu nit ñi dañu war a tontu nit ñi mais mbaxana mbaxana rek la bàyyi ma wax dañu war a tontu nit ñi sur les sur sur sur la base du règlement intérieur mais ay cravate boo takk ak boo takkul loolu taxuñu fay ñëw dama ni dama ni bàyyi bu leen ma wax loo du ma ko summi parce que mbaxana laa sol comme tout le monde ici li mbaxana rek la voilà beneen bi mooy on nous dit qu'on est en procédure d'urgence mais ana notification bi ñu le président de la république def yónnee ne na ñu réunir en procédure d'urgence kenn moo ko yor fii Donc, on ne nous a pas ça. Ce pas la peine, mon euh, ami, de dicter à ton ami côté ce qu'il va dire ici. Bah, il m'a un élément supplémentaire boo xam ne war nañ ci basé wu pour ajourner cette séance d'aujourd'hui je reviens encore une fois sur l'article 46 du règlement intérieur bi le président a soulevé Cette séance ne doit pas se tenir parce que nous n'avons pas eu le rapport 24 heures avant. On n'est pas comme l'a dit mon cher collègue euh, euh, Sanou John, de, de, de, à des fumisteries. dañu ne voté wuñu loo xam ni règlement intérieur moo ko imposé on applique on doit appliquer le règlement intérieur mënul nekk beneen bi waxoon naa ko fii keroog li ñu fi présenté woon fii di ñu wax waxu commission d'enquête parlementaire sur le principe pour transparence ñëpp d'accord nañu mais on avait dit article bi nañ ko dindi parce que bañ koy wax xamoon nañ ni fii la gars yi jëm si woon l'histoire nous a donné raison lii la gars yi bëggoon ma ni commission d'enquête parlementaire taxu leen woon jug vous avez un candidat boo xam ne bëggatu leen ko ngeen bëgg ko éliminer benn beneen bi xam ngeen ni opposition quel que soit alpha dafay gagner élection yi ngeen utiliser ay nit ngeen baal ma pour arriver man li ma wax dama ko assumer tutuma kenn dama ni ngeen utiliser ay nit je l'assume qui se sent morveux se mouche je n'ai parlé à personne ici sama wax je l'assume pleinement donc loolu moo indi lii yëpp moo tax ñi ko voté woon fii keroog amal nañu ak Sénégal te naa nga xamal leen nag le clergé a parlé wax na dégg ngeen monseigneur Adrien li mu wax démb dégg ngeen mun Mountakha Mbacké li mu wax jaarale ko ci ki mu yónni ci benn émission dëgg nañu arrêté lii balaa musiba di fi am personne ici y compris moi, ne sera à l'abri de ce qui va se passer dans ce pays. Retirez le lit pendant qu'il est temps parce que nag ñu ngi jàpp nit ñi ñu ngi tëj nit ñi ñu ngi gaañ ay policiers er, de ay nit sax mën nañ fee de te boobaa nag yéen la parce que ka ngeen doon accuser moom naan moom mooy taal dëkk bi ma nga kàpp Manuel tëdd xanaa kooku nag da ko bàyyi mu lu tey dëkk bi nag yéen yéen a ko bëgg a taal tey lu fi xew tey yéen la arrêtez ça pendant qu'il est temps. fii nag moom lu leer lañ leen wax xanaa li ñu fi defoon rek à l'installation gendarmerie ñëw mais fii kenn du fi voté cette loi là. Le président Moussa Diakhaté, vous avez la parole.

sur les affaires soumises aux délibérations de l'Assemblée, soit par un nombre de députés au moins égal au dixième. 17 ont signé, c'est très valable. Donc je demande qu'on poursuive les débats. Merci, Monsieur le Président. Merci. Euh, le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le Président, je demande la poursuite des travaux. Merci. Chers collègues, regagnez votre place. Je, je, vous demande de regagner vos places. Regagnez vos places. regagner vos places. Voilà, merci. Quels sont son adoption